sepertinya jàppub jàmbur di ko xas te ki ngay ya xas bo tuddé bëgg di ñu yéla nga jóg diju ñun la bu suba nga melni mom moom nga yàkkamti bëtt set ndax nga melni mom loko waxal ci yow la ne way nekkul ci mom sëriñ Maxtaar mboro waxat ko ta ki ngay ya xas bo tuddé bëgg di ñu yéla nga jóg diju ñun la bu suba nga melni mom moom nga yàkkamti bëtt set ndax nga melni mom loko waxal ci yow la ne way nekkul ci mom japp jambour diko xass ta ki ngay xass bo tuddé bëgg di ñu yéla nga jog di ju ñun la bu suba nga melni mom nga yakamti bëtt set ndax nga melni mom loko waxal ci yow la né way nekkul ci mom moom Jordinya Amalingone